ngir ñaawlu condition yu metti yu tegu ci seen ndodd liggéeykat Eiffage Maritime yi di ko xamle ci seen ndaje ak taskatu xibaar yi. ba ñu dalee liggéey foofu ba léegi depuis septembre 2019 dañoo gis ni suñuy feyoor day gën di wàññeeku te même heure yi ñuy liggéey moom la ñuy liggéey 12 heures de temps la ñuy liggéey di ko def kaaru bëccëg ak kaaru guddi ñu nekk ñetti équipe A B di am ñaari bés repos te ñaari bés repos yooyu yëpp ñoom ñoo ñu ko exiger kenn ko heure supplémentaire nga xamante ne chaque jour ñoo ngi koy liggéey gis ñu si suñu bopp mu doon loo askan Sénégal bi yëpp xam na ni carrément ñun lu ñuy dund fële na la ci biir Marine dafa mel comme torture donc ñoo ngi comme nous traité comme ñu bu mu jam bobu lañ wax dafa bu dañoo bëgg mu dog ñu fay ñu suñu fayor te timit ñu jël en charge ñu nga xamante ñom ñëpp dañ fa jot gañu mu doon bañ mu doon mu baña nek ay waxu kessaw kessaw di wax ni encore ñun ñu fa nek plus de 3000 hommes di fa liggéey ñu am 5 blocs juroomi douche rek lañ fa am ci juroomi douche yo yëpp ci lañuy ñuy tàncaloo te kenn ku ci nek xam nañ ni fu mu nek ni mbass mi mo ngi fi ci bir Sénégal mënuñu wax bokk dañuy xeex mbas mi ba pare mënuñu am hygiène bu doy. ñuy interpeller syndicat yi ñu taxawu liggéeykat yi ak nguur gi tamit. balaa ngaa lijjanti emploi yi nga war a créer yow emploi yi nga yore naka nga koy yorewee ah ku mënul yore xaw ma ngunu ginaar nu muy nu muy yore ab réew ku mënul sàmm ñoŋal liggéey yi nekk Eiffage Marine. kat yi nga sais ñu entreprise mais naka ngay créer wé emploi donc président Macky Sall interpellé déjà yi nga mo am nañu ba entreprise yi respecter ak qui est kat nañu fexé ba yi nga des emplois décents ñu lay fay payor bu mot ci waxtu di respecter sa àq ak yelleef di respecter le droit syndical. ngir mu saafara seeni jafe-jafe waral ñuy sàkku ñu fay leen seen ay heures supplémentaires. waaye itam ñëpp xam nañ ne ci wàllu liggéey heure guddi bokkul ak heure bëccëg guddi pour nelaw la waaye Eiffage Marine boo moytuwul sax heure guddi moom la ñuy gën a ñàkk fay que heure bëccëg or heure guddi. buñ koy fay moo war a gën a bëri moo war a gën a cher que heure ba njëkk loolu itam ñu ngi koy ñaawlu ba fu ñaawlu yam depuis alxames nag bii passé liggéeykat yi nee nañ mënatul mënatul nekk waaw lii moom du dem dootuñu dootuñu ko nangu tey dootuñu ko nangu ëllëg ñu bank seeni loxo ñun nag waa frappe section Dakar bu frappe ñu ne leen du ngeen wéet ci xeex bi comme centrale syndicale dañuy lek seeni per lek lekk seeni salaire comme conseil économique social et environnemental payoru euh, euh, au conseil des collectivités xawma territoriales lek sen xawma salaire membre de conseil d'administration motax ñu ne pat ñuy lek rek di won rek tok di seetaan liggéeykat yi ñu leen di note ñu torox comme syndicat yi ñoom itam ñom ñep dañ leen jënd ñu ne pat ñun waa frappe Dakar duñu ñu toog seetaan suñu ay mbokk ñu leen di toroxal di profitoo nag di wax ah président Macky Sall nee na waaw comprendre na xaw ma signalu jeunesse bi dafa am problème emploi mais ñun waa frappe li ñuy wax mooy problème emploi fi muy commencé mooy emploi yi nga yore balaa ngaa lijjanti emploi yi nga war a créer yow emploi yi nga yore naka nga kay yoré wé ah ku mënul yoré xawma ngunu ginaar nu muy nu muy yore ab réew ku mënul sàmm ñoŋal liggéey yi nekk Eiffage Marine kat yi nga xamné ñu ngi ci yeneen entreprise yi mais naka ngay créer wé emploi donc président Macky Sall fi ñu koy njëkk interpellé déjà liggéey yi nga xamné ne moo am nañu fexe ba entreprise yi di respecter ak ak yelleefu liggéeykat. weer bu nekk ñu yóbbu ay liggéeykat chômage technique ak yeneen xeetu mettital yu ñuy dund waral fii ak samedi ñuy amal dox ñaxtu. ci biir weer bi di nga gis sax ñu yóbbu ay liggéeykat benn yoon ñaari yoon wala ñetti yoon chômage technique te duñ la ko fay waxuma la nag ku sa kër ñu dàq la 28 délégué moo fa am te 28 délégué yi ñoom ñoo ko tànnal seen bopp.

xamal tamit opinion publique française mais li moy taxawaayu état Sénégal mu ngi ne muut mu ngi ne pat ci nekkin métit naxaru liggéeykatu euh, Eiffage Marine mais ñun sénégalais à la limite soxlawuñu ndimbalu Union européenne soxlawuñu ndimbalu France nañu respecté ak ak yellefu askanu Sénégal respecté ak ak liguey liggéeykatu Sénégal loolu buñ ko respecté rek doy na sëkk. Voyez. 4 heures de temps, heures supplémentaires, 3000 travailleurs depuis 2019. Mais, si vous avez un milliard, vous pouvez faire un Sénégal 1 milliard. Mais quoi donc Fait que vous avez un don. Dans un autre milliard de FH Marine, vous avez une entreprise française qui fait non. Vous avez une entreprise française qui fait